رتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بكم من نعمة فمن الله مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوات نانتي سين ورتل القرآن ترتيلا jot jotaay bi nga xamni dañ ci bok di jàngat yenn ci téré yi nga xamni day jàngale naka lañuy jàng alquran ju jub ju wér ta tollu won ci muqaddimatul jazariya wara dal tay inshallah wala wara agali àggali fi ñu taxawe woon ci babu makharijul huruf sunu jotaay bi wess gis nañ limu المخارج العامة waaye limub tamit almaxaarijul xaasa waaye junjaale woon nañ tamit wuute gi ci borom xam-xam yi am ci ñetti lim lim bu nekk ñen ñoo ko wax borom téere bi nee na lil jaw fi alifun wa uxtaaha wa hi xurufu maddin lil hawaa'i tantahi lil jaw alifun am nusxa yu bind fa aliful jaw fi wa uxtaaha nee na bu bi tudd al jawf di put te waxoon naa ni mooy alxalaau alwaqi fi lfami walxalq espace bi nekk ci diggante bi nekk ci put ak gémmiñ bu tijjee ko moo tudd al jawf nee na foofi mooy génnukaayu alif alif nag mooy alif gi xëcc aliful madd aliful mad alif gi nga xam ne day xëcc bu jiitoo wala bu toppee ci xaraf aw xëcc lay doon ci moom comme qaala ak yaxaafu wala yu ne demee rabbil alamin a ayin googi alif moo ko xëcc malik malik miim gi ak alif moo ko xëcc alif googi di xëcc la wax ni mi ngi génn ci aljawf wa uxtaaha ak ñaari mbokkam ya xuruful madd ñett la alif waaw yaa moo bu ne fa aliful jawf alif tudd alif gi xëcc bu ne ñaari mbokkam ya waawul madd ak yaa ul madd la kon waaw gi xëcc moomit it ci aljawfu lay génne kom yaquulu yatuufu quu anfusakum quu qaaf googi waaw xëcc waaw googi xëcc qaaf gi ci aljawfu lay génne kadalik alyaa almaddiya yaa gi xëcc moomit it eh, ci aljawfu lay génne كم يحيق يحيق حرف ووي ختي حاجي تبابي يا قوي ختلا ولا لملني سيئت سيئت يا غوغي ختي سينغي يا اوك ختلا موم لا وخني موم اك واو غي ختي ak alif gi xëcc ñoo bokk dëkk ci aljawf moo tax mu ni fa aliful jawfi wa uxtaaha alif ci aljawf lay génne moom ak ñaari mbokkam ya di waaw ak ya xuru wahiya te ñoom ñett ñoo ñii xuruufu maddin ñooy xarafi xëcc ñooy xarafi yi lil hawa i tantahi maxrajul jawf borom xam-xam yi dañuy wax ni maxraj muqaddar la du maxraj mu xaqaq maxraj mu muqaddar nag mooy génnukaay boo xam ne xaraf yi amu fa foo xam ni fa lay départ ak fa lay yem daanaka moom ci yemukaayu xaraf bi xuruful madd mi ngi yem rek ngelaw gi génn ci sa gémmiñ jamono bi nga koy wax bu jeexee rek xaraf yi fa lay yem moo tax mu ne lil hawa itantahi lu waral loolu mooy génn waay boobu ni ma ko junjee sànq du maxraj muqad muxaqaq waaye maxraj muqaddar la ñett xaraf yooyu ñoo ko am di xuruufu al waaw gi xëcc yaa gi xëcc aham shay mooy nga xam ni xuruuf al madd al thalaatha ñu ngi génne ci aljawf xuruuf al madd ñetti xarafi xëcc yi ci alquran ñu ngi génn ci aljawf mooy seen maxraj mu ni thumma li aqsa alxalqi hamzun haau wa min wasatihi fa aydun haau kon pare na ci benn maxraj aam di aljawf ñëw ci maxraj aam bi ci topp di alxalq di put نيت مخرج خاصة ño nek ci biram amna ثلاث مخارج ولا ثلاثة مخارج خاصة الحلق نك نيما كو جني سانق موي اسباس بي نيك سي بير بولي اك بولي سكن نجي ني ورنا نكو خام موي في ليك اك نان دي جار غيناو بو گيمن ديفه ليگيم با پاري فام كو جار لا پور مو ديم سي بير loolu yi mooy ak boli diggante boobu mooy alxalq wolof di ko wax put moom put moom yi dafa seddale ko ci ñett ci ay génnukaay dafa am lu ñu tudde aqsal xalq mooy fa gën a sori ca put ca cat la boo jëmee ca wetuk dënn am fu ñuy tudde wasatal xalq mooy diggug put am fu ñuy tudde adnal xalq mooy fi gën a jige ci put boo jëmsee ci biti nga xam ne foofii la gën a jigee làmmañ génnukaay bu njëkk bi nag ci put di aqsal xalq moom la ci teg moo tax ma ne thumma li aqsal xalqi hamzun haa u nee na fa gën a sori ca put aqsal xalq di fa put gëna a jigee dënn ñaari xaraf ñoo fay génne alhamzatu alhaau hamza ak haa ñu ngi génne fi gën a sori ci put wa min wasatihi nee na ca diggam moom put fa aynun haau ñaari xaraf ñoo fa dëkk di ayn ak xaa ayn ak xaa xaa gu amul tomb gi xaa lonk gu amul tomb moom ak ayin ci digg put lañ dëkk adnahu yani adna al fi gëna jige ci put nga xamni fi la put gëna jige jigee bo boo jëmsee ci biti neena fofi ghaynun kha'uha momit ñaari harfa fa dëkk al ghayn ak al kha ghayn gi nekk ci ghislin wala ghayri ak xoo gi nekk ci xoyir wala xoosiriin ñoom ñaar ñooñi ñoo ngi génnee fi gën a jige ci put di fi put gën a jigee làmbañ nga gis ni kon ñetti génnuwaay yi ma waxoon ni moo nekk ci biir put benn bu ci nekk ci ñoom ñett ñaari xaraf ñoo fa dëkk liñ ciy dégge kon mooy xarafi put yépp juróom-benn xarafi put yëpp juróom-benn la bu amee ak fàttali ku tuuti ci suñ bind ya wees ca téere boobu yi tudd tuxfatul atfaal bam ñuy jàngal axkaam an nuun assaakine wa wiin eh, xukmul idhaar waxoon nañu lu nu mel junjoon nañu xarafi put yi xaraf yi nga xam ne ci wàllu dëkkuwaay ci put lañ dëkk te juróom benn ndax même xaraf yii di juróom benn xaraf yi dëkk ci put ñaar yi dëkk ci aqsal xalq fa gën a sori ca put di hamza ak ha ñaar yi dëkk ci ad digg put di ayin ak xaa ak ñaar yi dëkk ci adnal xalq fi gën a jige ci put di xëyin ak xaa ñoom juróom benn ñooñi même xaraf yi ñooy xarafi idhaar ci buntub an nuun as saakina wa tanwin moo tax ma ne bu amee ak fàttaliku tuuti ci téré bobu tuddu Tuhfat atfal ci suñu bind ya wees dañuy gis mu doon wax ni fal awalu izhar qabla ahluf qabla ahrufi halq sitt rutibat faltacrifi hamzun fa haaun thumma aynun xaau muhmalataani thumma gaynun xaau kon al aljamzuri rahimahullah junjoon nañu bunt lenn ci maxaarijul xuruuf ci téere bi nga xamante ni moom la cheikh alimam al jazari di jàngale te junjoon nañu xaraf yi nga xamante ni moo génne ci put ca baabul idhaar wala baabul nun sak no tanwin ca téereem ba ndax daa waxoon ni juróom benn xaraf yi génn ci put mooy xuruful idhaar daal di leen lim gis ngeen bi ñëwaatee fii lool képp lañ gisaat thumma li aqsal xalqi hamzun fa haa'u ñaare ngi noonu ثم لوسطه فعين حاء ينن نون أدناه في جنجي جوم غين خاؤها مجرم بن يوي جرم بن حرف يوي برو خامي دنج كوي تنك تي بن صدر بيت ولا عجوز بيت بو خامنتني جرم بن بات لا بات بو تي نيك حرف بكو دور بن لا تي حروف الحلق مي اخي هاك علما حازه غير خاسرين أخي هاك علما حازه غير خاسر أخي الهمزة هاك الهاء علما العين حازه الحاء غير الغين خاسر الخاء جرم بين حرف جرم بين بات بات بوتي حرف بكو دور ben la ci xarafi put noonu mu toftaloo noonu la ko toftalee am na beneen bayt boo xam ne daañ ko ci faral di tudd ànd ak ni amul ak toftaloo ni ko gii amee waaye moom it juróom benni baat la baat bu ca nekk xaraf ba ca njëkk xaraf xarafu put la muy bay muy baati ida gaaba anni habibi hammani xabaruhu ida gaaba anni habibi hammani xabaruhu ida hamza gaaba gayin anni ayin habibi ha hammani ha xabaruhu alxaa ma nga juróom benn kon juróom benn xaraf yooyu ñoo dëkk ci put ñaar yu njëkk yi di hamza ak ha ñoo dëkk fa gën a sori ca put gën a jige dënn ñaar ci topp di ayin ak ha ñoo dëkk ci digg put ñaar yu mujj yi di gayin ak xaa ñoo dëkk ci fi gën a jigee ci put di gën a jigee làmmañ xaraf yooyu mooy xarafi put ñett dëkkukaay yooyu mooy dëkkukaay yu yu yi put séddali ko foofu la ñuy taxaw ne allah mbokk yi seen mbokk Abou Taha ngeen ci àndaloon Mouhamed Alioune Guèye seen jotaay warattilil Qur'aana tartiila di leen dig daje jotaay bii di ñëw incha allah àggali buntub maxaarijul xuruf الله رتل القرآن ترتيلا